leen bànnaax di ñaan yàlla mu nangul ñu ñun ñëpp di nuyu sénégalais yëpp nag ñu ne fii ak ñu ne bitim réew delluwaat gën a remercier rek mboolem seen sénégalais yi rawatina militants yi sympathisants yi ci seen taxawaay suñu wet ndax jamono ji ñu tollu kenn umpulewul ni jafe na ci ñun ndax ay semaine semaine gi ni ay fani fani gi ni ñu di yónni ay alkati, nguuru Macky Sall yónni ay alkaati ñu barikade sama koñ yépp rawatina nag sama kër maak sama njaboot ba kenn mënul dem kenn mënul dikk ñu dund tabaski bi ci noonu yàlla def suñu anniversaire ñëw ci noonu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 amna lo xamne bu la ko yàlla ya xamalee da ngay anticiper di tubab nan da ngay anticiper da ngay jël say matuwaay may ñaan yalla ya nak vidéo yi nga xamne ma ko fasiyene def bu adina dox ba ñu war leen ko tegal lolu moy lañ nekkon ñom banañ ko moy téguñu ma loxo tasuñu suñu parti terewuñ ñu nekk candidat bu boba vidéo yi dañ koy denc rek wala ñu effacer ko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

waaye boo nekkee koo xam ne dafa yoor dadi di buur yor doole ba pare të lu soxor nga xam ne lu def lu métti rek lay bëgg teg nit ñi ku ne ànduma ak yow rek mu essayé la faagagal bu boobaa yow da jëfandikoo sa xel na la doole nga ëpp ko xel te bu soobee yàlla nañ leen woon ni ñoo leen ëpp xel téeméeri junni yoon ñoom ak seen état ak seeni renseignements généraux ak seen gendarmerie seen police lool yeb boo ko ak lenn ci seen magistrature nga xam ne da leen dañoo los gombaanu and ak ñoom ñoo ñëpp bo len dajale nañ len won bu soobee yalla bu dee fa ñu bëgg jëm lañu jëm ci semaine yi ñu ñëw ci weer yi di ñëw nañ len won ni ñoo len ëpp xel bu soobee yalla motax mané ci li ñuy dëgmal muy élection yi ñu jëm ñoom nañ def tout pour galancor sama candidature malheureusement Sonko ndax Macky Sall da ko wat wax ko ay nit ñoo xam ne ay kilifa lañ ñooñu xibaare ma ko keroog bi mu annoncé barki Demba Ndiaye bi mu annoncé moom du nekk candidat la waxtaan ak ñooñu waatal leen ne leen Ousmane Sonko du nekk candidat tax jàpp na ni dal rek maa ko teg jàpp na ni maa ko xañ troisième candidature jàpp na ni maa maa won sa africain yi ak sénégalais yi ak àdduna bi lan moy xarkanam Macky Sall deug deug deug loolu nak le ma la munul bal te duma ko bal bi yëpp abadan mom ak ñiko wër bis bu dañu ñu reñoo ko ba guddi fofu non mermos kon wat na ni man duma don candidat dajale na ay magistrat cour suprême ba conseil constitutionnel ba jox leen digal ba nopi ci loola te buñ ci tollé di ngeen ko gisal seen bopp ndax nañ ko defé ci anam go xamni adduna yëpp dina xam ni Sénégal ridiculiser nañ ko ci fañe ñuy jaare ñoom pour tere ki ñëpp jàpp ni mooy chef de l'opposition pour mu bañ a nekk candidat buñ ci tollee di ngeen ko gisal seen bopp mu téye conseil constitutionnel ci loxoom Daouda Badio wala euh, ngeen jégal ma ci Daouda Badio bi ndax dama amoon collègue bu nekk impotu de Daouda Badio waaye Badio Camara laa bëgg a mu téye ko ci loxoom waaye yemul ci moom dina am ñooñu nag boñ ci toll dinañu am lu ñu jëfee bu xam ne dina yëm Sénégal yëpp waaye yemul ci moom ndax Sénégal justice bi moo tëree noo xam ne nooy gën a yéegee rek mu gën a doy waar nooy gën a yéene rek mu gën a fënax noonu la def ak Cour suprême ba lem bëgg foofu dina ko am soo wàccee nag ci juridiction yu ndaw yi bëri na tey ay magistrat yoo xam ne ña ngay bañ ba léegi waaye malheureusement bëri na am na ci tam ñoo xam ne am na fu ñu mën a jaar ñoom li may wax nag tekkiwul ni soo demee fu mel ni cour suprême la fa nekk yépp dafa fa nax déedéet am na fa ay magistrat yu diñ am na fa ñoo xam ne ñu ngi bañ ba tey waaye Macky teg na fa ay nitam yoo xam ne depuis premier président ba kenn nag keneen bañ ci tollee di ngeen ko gisal seen bopp ñoom lay sant ne leen dossier bi gaaw gaaw defal ma ko dossier bi na ngeen ci àttee nii te lay demee kom nag loolu xam nañ ko te xam ko xam gu wér day jaadu bu dee njiit la te ngeen wóolu ma ba jiital ma ma jëfandikoo sama xel ñoom ñu jëfandikoo seen doole ak seeni magistrat man ma jëfandikoo sama xel xel googu nag moo ma andi ci moo xalaat ci stratégie ndax fan yii yëpp depuis mu nekk Ziguinchor ba ni ma ñëwee Dakar ni daanaka mois de mai mois de juin ba juillet maa ngi xalaat di déglu it yi ak sympathisants yi ma dégg lu bari ñu naan ñun amuñu plan B amuñu plan C amuñu plan Z ñun benn candidat rek lañu am te day jàll par force muy Ousmane Sonko. loolu nag dinaa leen bàyyi ngeen continuer di ko wax ndax baax na ci stratégie baax na ci bataille psychologique bi waaye duñ ko jëfee ndax buñ ko jëfee rek sànq projet bi duñ ko jëfee ndax buñ ko jëfee sànq projet bi may fàttali ni projet bi boo ñu dooree politique ba léegi yéen Sénégalais yi projet la wax laa waxtaan ak yéen waxuma ak yéen nit de mosuma leen ne je la seule constante. ñi ci des ñëpp ay variante lañ musuma leen ne sudul man c'est le néant moo tax nun dañu amal solo rek mooy nañu jàllale projet bi buñ ko jàllalee ba noppi ñu dajewaat ñun de l'autre côté xool nu ñuy tojee suñu bopp jën ak nu ñuy defaree réew mi dina fu ñuy toll projet bi day soxla passeur passeur rek lay soxla kon ñun suñu demee dem dem dem dem ba gis ni frontière am na def nañu benn barrière def ci seeni grillage dañuy soxla beneen stratégie boo xam ne pour passage rek la waaye tekkiwul ni projet bi tayle nañ ko wala joxe nañ ko wala saraxe nañ ko déedéet kon projet bi mooy suñu yitte ñun projet bi faw mu jàll te du jàll deux mille vingt neuf du jall 2034 du jall du jall projet bi dañu bëgg mu jall ci 2024 bi ci kattanu yalla ak bëgg-bëgg Sénégal yi moo tax Ousmane Sonko am solo lol ci projet bi am ñani ñi sax dañ nan Sonko moy projet bi projet bi moy Sonko waye projet bi Ousmane Sonko du ci ko xam ne ku indispensable la ba bu fi bu fi ñaké rek projet bi taxaw bu lool amone rek ma xam échoué nañ ndax lool mo andi échec gu ñu bëré bëré bëri moy li ñi tabax yeb dañ koy tabax ñom ci seen bop ñom ci seen tur seen tur seen daraja lool amul ci Pastef te yàgg nañ ko wax yamu ci discours dañ koy jëf ñep gis ko munoon nañ dañuy nekk candidat par force bu ñu dul candidat lii dina fi am lële dina fi am déedéet dama ni man Ousmane Sonko bu mu mënul nekk candidat ñu fexe ba projet bi jàllale ab wala ay candidat loolu moom mooy suñu préoccupation bu njëkk ci liggéey boobu nag wala ci xalaat boobu laa jàpp ni buñ ci tollee ba war a dem uti parrainage buñ ci tollee buñ ma joxe fiche de parrainage mu uti parrainage ñëpp daanaka soxla wu ma ko wut sax ndax fi ma toog su ma newoon par naa bëgg waa Tamba nañ jóge Tamba ñëw pare ni wa Matam def ko waa Kidira def ko waa Ndaka wax ma waa Ndakaar ak keneen ñi nga xam ne jege fi fii waaye buñ ci tollee bu ñu joxe dañu dem ci parrainage buñ ñu ko joxul it dinañu libéré même buñ ñu ko joxee sax dinañu fexe ba am ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañoo ànd ñi ñun nekk ci parti bi di membre Pastef yu fës yu ñëpp xam ñii di suñuy allié ñëpp xam leen ci ñu ànd ñoom ci loyauté ak discipline dinañ ci tànn ñoo xam ne daañ lañ ne dem leen jëli ay parrainage ay fiche ci biir parti bi ngeen dem uti parrainage wala ngeen déglu ñu waaye noonu it noone it dinañu seet ci suñuy allié ñi nga xam ne ànd nañu ak ñoom te déclaré wuñu candidature pour demal seen bopp ba fi ñu wax ni te amaana peut-être duñ ko déclaré ba keroog ñu toll ci war a dugg ci parrainage bi ndax ñu ko déclaré te di suñuy allié am na ñu ko defagum te am nañu courtoisie ak yéege bu doy woon nañ ma ci téléphone. ni ma ah ñun de dañoo décider nekk candidat ma ne loolu lu baax la parce que suñu ànd ci biir Yewwi Askan loolu la ñu waxtaanoon dañuy dem ànd ci élection locale ànd ci élection législative parce que élection yi élection raw gàddu la da ngeen di boole dajale waaye bu ñu eggee élection présidentielle ñu fi nekk ñëpp ay leader lañu ko ci xool boppam ba yaakaar ni bëgg nga ko te mën nga ko am nga sañ-sañu dem wut sa candidature teewul nag dañuy bàyyi Yewwi Askan wi. mu nekk cadre boo xam ne peut-être bu ñu mutualiser dajale suñuy doole dina gën a yombal supervision élection yi mu am ñoo xam ne ba léegi it décidé wu ñu nekk candidat ñu décidé ànd ñun ànd man en tant que candidat fas sax taxawal coalition boo xam ne day day doon coalition wu Sonko président ma ne ci ñooñu ci biir ñooñu buñ ci tollee gannaaw ñi ñi nga xam ne ci parti bi la ñuy bokk moo xam ñett lañuy doon wala juróom wala fukk nga xam dañ leen naan dem leen uti fiche nañu seet tam ci suñuy allié ñi ñu ànd ak ba léegi ñoo xam ne dañ leen naan yéen it dem leen ngeen jël fiche parrainage muy suñu allié ñu gën a jege ñoo xam ne tey ñu ngi ci benn cadre di jëflante di liggéey ñooñ dañ leen wax ñoom it ñu dem uti seeni fiche de parrainage ñu téye ko ba nga xam ne dinañu am option yu bëri parce que dañuy wax ne jënax boo bëggee mucc jënax bu bëggee mucc day bëri pax tubaab ne on ne met pas tous ses œufs dans le même panier doo soo amee ay nen doo boole nen yëpp ci benn benn benn benn panier ndax bu panier ba daanoo rek dootoo dese nen yi da nga leen di dugal ci mbuus mi yi nga dugal leen ci panier bi yi nga dugal leen ci bool bi loolu stratégie boobu lañu bëgg a reproduire mooy dañu fexe ba ñuy jël fiche bëri ñu fexe ba ci ñooñu jël fiche mu am ci ñenn ñu am parrainage bu mat bu mucc ayib loolu mooy suñu stratégie buñ leen ko waxee nag bu ñu dem uti ko bu boobaa bu dee man bàyyi nañ ma ma dem ut sama fiche pare euh, sama parrainage déposé ñoom it dañuy déposé ñi am ci ñoom ñi jot a am ci parrainage ci ñoom bu dee tere nañ ma man. bu tere nañ ma du tey dinañu am nu mu tuuti tuuti tuuti ñaar wala ñett wala ñeent wala juróom ci ñooñu ñuy jàll te loolu bokkul ak ñi nga xam ne suñuy allié lañu suñuy allié lañu peut-être ñoom teel nañu décrété nañu nekk candidat suñuy allié lañu mel ni euh, soxna Aïda ak ñeneen ak ñeneen sumay may lim dinaa juum nga xam ne suñuy allié lañ te ñëpp xam ko. ñu bokk ci yeewi askan wi bu ko defee bu ñu génnee ci mbir mi ba dem conseil constitutionnel ba conseil constitutionnel pare li muy def ci parrainage ci contrôle juridique des dossiers bu ñu génnee ci loolu ba ñu ne ñu am nañu ay candidat ñu seet ndax kenn moo jàll ci ñun wala ñaar wala ñett wala ñeent ba juróom waaye l'essentiel nañu am ay candidat bëgguma sax ñu am benn candidat ma bëgg ñu am ay candidat bu ñu yàlla may loolu nag ngeen xam ni ñoom seen pexe na sax na bu ma yemoon rek ci man ne man rek may nekk candidat ndax daloon na ñenn ñi 2019 bu ma yemoon ci ne man rek kay nekk candidat bis buñ ma jekkoo rek projet bi yépp ñàkk candidat boobaa dañuy obligé génn ci projet bi dem seeti feneen fu ñuy jàppale ji waaye bu ñu fexe ba jàllale ay candidature donte jàpp nañu candidature Ousmane Sonko projet bi mucc na ci wàllu candidature te bu muccee ci wàllu candidature mucc ci boppam ndax bu soobee yàlla bu ñu amee candidat dem élection gagné au premier tour muy Ousmane Sonko muy beneen candidat buñ ko amee incha rabbi gagné au premier tour. kon lii mooy stratégie bi mu des nag bu ñu demee ba jàll ñu ne ah yàlla may nañ ñu am ñaari candidat yàlla may ñu ñu am ñeenti candidat di ma ne naka laay doxalee mbir mi dama waxtaan ak ñi ñu ko seqal ñëpp ñenn ñi waxtaan ak ñoom waxtaan yu xóot ñu ne ma ñun ñëpp doyloo nañ la yow lépp nañ ko sa buñ ci tollee foo joxoñ foofu la loo décidé noonu la bu dee sa candidature jàll na wax ji jeex na ñun ñëpp dañuy désister ñëw taxaw sa gannaaw ñu dem defi campagne ka ji bu dee nag sa candidature jàllul bàyyi nañ la yow nga xool nga seet nooy tànnee ki nga tànn rek ñoo xam ni kooku la ma leen ciy gërëm leen sant ñoom ñëpp ndax loolu confiance la estime la te dul lu tuuti ci man ma ne donc bu ñu yàlla mais ba ñu jàll ba am ay candidat yu jàll ñaari schéma ma mun a am te dinaa jël décision diggante ñaari schéma yooyu te bu ci nekk dinaa def ay vidéo teg ba nga xam ni buñ ci tollee su ma leen ne lii mooy choix bi rek yéen samay mbokk sénégalais dinañ leen tegal vidéo bi mu ngeen yéen ñëpp ngeen xam lan mooy décision bi kon ñaari possibilité moo am bi njëkk bi mooy ye ma tànn benn candidat yeneen candidat yëpp désisté ñëw ne kooku mooy suñu candidat jàppale ko ñëpp taxaw ci gannaawam ñu dem defi campagne campagne bi nag ju teg ko ci programme bi nga xam ne mooy sama programme bi ma liggéey mana ak cadre parti bi ñu ne fii ñu ne bitim réew ñu liggéey ko muy programme Sonko 2024 Sonko président 2024 di programme boo xam ne du lu bees ndax mooyoon programme 2019 bi dañ ko toggaat rek defaraat ko actualiser ko dugal ci loo xam ne lu koy gën a jëmmal la lu koy gën a taaral ak lu koy gën a matale loolu mooy doon programme bi quel que soit le candidat ñu ànd ñëpp bu dee dama ne kii mooy candidat bi ñeneen ñëpp ma léegi da ngeen di teggi seen loxo daal ñëw jàpp ci gannaaw candidat bi ñu ànd liggéey ñaareelu possibilité bi mooy ma bàyyi ñu am candidat yu bari waye ci biir candidat yooyu dinaa def sama déclaration wax ci Sénégal yépp ni kii mooy candidat bi kii la ñu war a woteel kii mooy candidat bi mooy candidat projet bi moom la ñu war a woteel ñeneen ñëpp nag candidat projet bi lañu waaye dañuy ñëw jàpp dooleel candidat bi sans pour autant ñu bàyyi seen candidature di ma ne ah loolu est-ce que du andi confusion est-ce que loolu du tax ñëw ñàkk ay voix lu mën a la waaye def nañ fi combinaison yu gën a compliqué yooyu tax bi ñuy def intercoalition wàllu yeewi ñëpp jàppoon na ni du jàll parce que day nit nit ñi duñu retrouver wu liste département sangam yeewi koy jiite ñu dugal ay député wàllu liste département sangam wàllu moo koy jiite ñu dugal ay député yeewi ñu ne dina tax ba nit ñi duñu comprendre ndax suñ ñëwee fekk bulletin yeewi ak bulletin euh, wàllu te war a voté wàllu foofu et non pas dina am ñuy jum toujours dem jëli bulletin yeewi dugal te loolu dañ def ñuy ñàkk loo ay voix muy dëggit waaye gis nañ yàlla defal ñu sutura ba mu dox kon mën na am ay inconvénient wala ay ci nit di ragal waaye mën na am tam avantage avantage bi mooy lan mooy bu ñu amee ñaari candidat wala ñetti candidat wala ñeent Sénégal yëpp xam ni kii mooy candidat principal bi ñeneen ñi nangu ko ñoom it day tax ñu mën a démultiplier suñu campagne fu ñu doon am benn temps d'antenne dinañ fa am ñaari temps d'antenne wala ñett wala ñeent bu boobaa kenn ku ne dina mën a jukki lenn ci programme bi te ñeenti candidat bokk benn programme commun muy programme bi nga xam ne mooy ma leen wax sax kon fu ñu doon am benn temps d'antenne dinañ fa am ñetti temps d'antenne wala ñeenti temps d'antenne wala juróomi temps d'antenne gën a mën a waxtaan ak Sénégalais yi ci li nga xam ne mooy suñu programme te Sénégalais yëpp xam ni programme boobu mooy programme Sonko deux mille vingt quatre donte tere nañ ko mu nekk candidat ku déglu programme boobu déglu nga Ousmane soo quel que soit candidat boo jukki wax leen kon loolu dafa solo ñaari option yi moo ci am te bu soobee yàlla buñ ci tollee dinañ leen wax ban mooy suñu décision ci ñaari yooyu. quelle que soit décision bi ma jël nak damay ñaan ñepp nangu ko euh tak seen dig nangu li ñu dey décider ba paré sóobu ci liggéey bi quel que soit ku ñu tànn ak ku ñu tànnut ndax projet passif bi du projet individuel bu dee man maa mën a renoncer à tout pour projet bi Jital projet kan bi ba man mu jaral ma man ma baña fétalé féetale sama bopp ca kanam baña def li tubab di égoïsme moy man rek man rek ba tax mu xaj candidat kon gisuma keneen ku wara xalaté neneen ak koo munti doon ñun projet bi lañ wax bu tan jotté dina tan ci anam ko xamni lenn rek moy doon sama yitté moy projet bi xawma ci xarit xawma ci mbokk xawma ci leneen projet bi rek ndax li ñuy sacrifier ci àdduna projet bi moo tax ñu sacrifier te projet bu weesuwul njëriñu sénégalais yi nger jeex ci réew mi sàcc alal réew mi jeex fi alal réew mi ñuy tay tay leen euh, bitim réew di jël di yóbbu jeex fi ñu moomaat suñu bopp séddale bi ñu def ko ci nu gën a mandoo ba kenn ku nekk jot wàllam ci réew mi projet bu weesul loolu projet souveraineté la avant tout c'est un projet souverainiste doog a nekk un projet panafricain ñu assumer ko kon jëmb yi amul solo de bu ci kenn jàpp ni a commencer par man mi toll nga ci foo xam ne bu dul yow rek neen la foo xalaatee noonu rek bokkoo ci projet bi donc buñ ci tollee ba ma ne nii laa ko ba joxe samay orientation képp ku bokk ci Pastef képp kuy allié képp koo xam ne gis nga sa bopp ci projet bi nangul ni noonu la nga takk sa ndigg ñu jublu ci liggéey bi ndax bu ñu booloo manko rek ñi xajuñu si ñooma ah. bosu élection bi bu ñu booloo manko ak candidat bu munti doon ma ngemb ko man parti bi ak allié yépp ànd ci bosu élection bi du ma ne 18 heures waaye midi élection bi jeex bu soobee yalla loolu nag dafa laaj kenn ku ne fàtte sa bopp ndam rek ndax bu ñu demee ba yàlla teg réew mi suñu loxo ba sénégalais yi wóoluñu ba dénkuñu képp koo xam ne liggéey rek moo la tax a jóg am nga ci sa place ndax état ku xam ni mu toll ak li ci nekk ci responsabilité président premier ministre ministre d'État ministre délégué ministre simple ministre délégué directeur directeur général chef d'agence ambassadeur xam nga lan ak lan la lan képp koo xam ne am nga compétence te liggéey rek tax la jóg bu ñu yàlla dénkoon réew mi te nga bokkoon ci projet bi di ci liggéey daañu la dénk ne la demal liggéey xool la liggéeyee te jaaral ko ci yoon ñu la jaajëf yoo la promotion waaye képp koo xam ne safaan bee ko taxoon a jóg foog ni la woon mën naa mën naa continuer dama fi nekkal sama poche dama fi nekkal ay mbirum caaxaan wala awma compétence bu boobaa it imma duñ la jox wala buñ la joxee ba pare doog a gis si loolu ci yow ñu nangu ko rek mu jeex tàkk waaye buñ yàlla jox xool xëccoo du am ndax nit dinañ la teg ngay liggéey liggéey ba yaay sonn ne mënatuma dama bu ngeen jël ma dem noppalu ci tuuti ndax liggéeyal sa askan liggéeyal yàlla ya la warul ànd bëgg-bëgg yu bëri ci sa sa mbiru bopp sa poos ak sa yu demee noonu kon buñ ci tellee ba ñu def décision ne lii la damay ñaan ñëpp mooy na ci ñëpp ànd jàpp waaye buñ ci tollee ba war a jël ba jël décision boobu damay tàllal sama loxo sénégalais yépp nag sama mbokk acteur politique yi yi nga xam ne dañoo bokk opposition bi di leen tàllal loxo war nañoo dajale suñu doole ba nga xam ne li gaay yi doon wax vote utile vote utile élection bi dafa war a gaaw te leer nañ waroon sax laam-laame ndax est-ce que gagné nañu premier tour am déet ndax bu ñu ne woon cinquante et un pour cent lañu am sax ñoom ñu la bañ carte gi ne demeewul noonu élection bi premier tour la war a jeexe à soixante quinze pour cent wala yu mel noonu nga xam ne kenn mënu ko werante te loolu dafa laaj Sénégal yëpp daje xaw ma ñaata candidat yi am de mën na am ñett lay doon mën na am juróom lay doon comme en deux mille dix neuf mën na am mu nekk dix wala quinze wala vingt wala trente yàlla xam waaye candidat yi nu ñu bari bari bari lamay ñaan bokk opposition bi yëpp mooy ñu def dajalam def vote utile su ma nee opposition bi nag mooy képp koo xam ne teg nga ni fi ñu toll noon buñ ci tolloo képp ko xam ne conseil nga ne nga sa bopp kom opposant ci képp koo xam ne jàpp nga ni opposant nga talal nañ ñu dajale suñu doole jëlee fi lii tax lii musiba la ci Sénégal xaw ma ci xàjj seen Pastef nag dafa di parti boo xam dañu am culture partage ak culture ànd ak ande nañu sax ba and ak ñoo xamne ñepp ñëpp xalaatoon na jàppoon nañu Pastef du and ak ñi bu ko defee gaay yi naan way moo fi newoon système bi moo fi newoon lii ànd nañu ba and ak ñoo xamne ba ñuy and ak ñoom ñepp ak ñuy naan yéen a ngi leen di yéen a ngi leen di bot di ngeen leen bot ba jox leen waaye yéen la ñuy njëkk a mat ba ñu jàpp ni jamono jooju réew mi loolu la soxla woon réew mi dafa soxla woon ñu dajale tax ça a été toujours notre logique kon buñ ci tolli lañuy ñaan nit ñi ndax dinaa ko wax ak beaucoup d'humilité nag mais la yàlla def loolu réew mii bu dee ñun ñi bokk opposition yàlla ya jox na pasteef doole goo xam ne du lu ñuy werante wala ñuy laam-laame loolu nag yàlla ya koy def du suñu mérite buñ ci amee mérite dix pour cent la quatre vingt dix pour cent yàlla la ndax ñeneen ñi politique yépp ëpp ñu leen ëpp ñu leen alal du dañ leen gën juddu doon leen topp jàng gëm ñu leen sonn ci politique waaye yàlla mooy tudd lu ko neex bu loolu amee nag ñu dem ba toll ci réew mi foo xam ne ñun ñëpp jàpp jàpp nañ ni mënatuñu continuer nii te fu virage bi buñ ko ratee defe naa dina metti trop cinquante ans yi di ñëw ndax enjeu yi wër Sénégal ma ne bu ñu tollee ci loolu nag ñëpp dañu war a def preuve de patriotisme moo tax ñuy woo ñëpp ñépp am na ñoo xam ne ñu nga doon ànd ak Macky barki démb ci wàllu politique ñu nekkoon adversaire léeg-léeg mu tàngaan jër waaye bu ñu génnee ci Macky ndax man dama benn adversaire la am ci politique mooy président maki Sall ak nguuram xam nga beneen keneen ku may boole dafa fekk nga ànd ak président Macky Sall ak nguuram waaye ku fa jóge tey tey tey ñëw taxaw samp sa dënn damay opposé mën naa ànd ak yow ñu ànd xeex ndax islam bi ñu ñu ñu bokk ñun nit ànd naag yëfuru màkk yi xeex yonent bi alayhi salaatu salaam rey ay yu bari ci ay saxaabam ba mu soog ko mu tuub te keroog bi mu tuubee li mu andi ci islam gi ñëpp xam nañ ko ñoom Walid defe naa moom lañ doon wax sayfullah islam Omar Omar ibn keroog bi mu tuubee la man duma bokk ci diine boo xam ne nit ñi dañuy làkkatu ci ay suusol di julli génne leen ngeen julli boobu julli ci kenn ñëmbuloon génne juli ci màgg yonent bi doon ñaan naan yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma kenn ci ñaari Omar yi ndax jàmbaar la ñu woon waaye boobu ñoom tuubuñu ñu ngi ànd ak yéefar yi sonaloon jullit ñi lool léeg sax ñu ñëw euh, torturer leen ki ñi seen jaam yi ñu amoon te tuuboon di leen torturer di leen def lu ne yonenti mënoon na ne ñii si système ba lañu bok mais dafa ñaan yalla yalla ma ngi lay ñaan nga may ma kenn ci ñaari omar yi e ba keroog omar bu ñuy tuub xëy demoon bëgg a faagaagal ay mbokam yu ñu leen ne tuub nañ mu dem fekkaleen fa dégg leen ñuy jàng alquran su ma jumu soratu taaxaalawul dañuy bu muy déglu ba ba fi ñuy egg faalam annahu la ilaha illallah mu dégg naa dafa xam daanu noonu la jaare tuub ne tey nag bis ni ki tey tuub naa kenn ku bokk ci diine gi ma bokk dootul nëbbatu di julli génne leen julli fu leen neex ba ma gis kan moo leen laal ci màkka ji kon loolu am na solo kon bu bu dara am rek ñëpp naan ñu woy moo ne woon système bi système bi man mi ko théoriser maa gën xam lan laa jublu ci système bi ñeneen système bi c'est des règles c'est pas les système bi c'est les règles c'est pas les nit lu mu baax baax baax baax nga yóbbu ko ci système bu bon te mu nangu système ba day ànd ak système bu baax waaye nit nu mu bon bon bon bon bis bu d'accord ni système bu mu nekkoon baaxul mu ñëw fekk système bu ko gën day baax te léegi nag léeg nag nit ni mu meloon ci may nekk ci système bu bon su doon malgré tout juboon na foofu bu ñëwee ci système bu baax mooy gën ci ñi fa nekk xayrukum fil islam xayrukum fil jaahiliya defe naa loolu la xadis bu wax ñi gënoon ci yéen bi ngeen nekk ci jaayil bu ngeen tuubee ñooy gën ci yéen moo tax jamono maam ceddo ga ñi gënoon ci ceddo ga bu ñu tuubee ñëw ci ji julit tam ñooy gën ci jullit kon ñun talal nañ suñu loxo ñëpp parce que tey Sénégal la ñuy wax waxuñu Ousmane Sonko waxuñu Massamba waxuñu Mademba ñun Sénégal la ñuy wax te moom rek la ñu am te ku ñu àndal tam ci ngor ci njub ak ci bëgg réew mi wor buy am de du jóge ci ñun doo sa toog ba dégg passé wor na loolu amut ñun de lañuy wor waaye ñun duñu waraate parce que suñu deret moo ko mun politique ñu loolu kon ñi ngi woo ñëpp boñ ci tollee ñu taxañ li ñu mën a dajale yépp ci Sénégal daa di pare ci ñi benn yoon parce que dafa jot lii mooy li mu doon andi ci introduction muy sama premier vidéo di leen gërëm di leen sant ci déglu bi di leen jaajëfal di ñaan yàlla nag lañ ci ragal ba tax ñuy préparer vidéo yépp yàlla bu mu mës am ci kàttan yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah